donc dam fi ñëwoon tey euh, seet si sama xarit parce que 2009 ba tey 2008 la woon sax ba tey euh, Omar euh, Ka sama sama xarit la moom moom may jox xar moo tax mu ñu woon fii parce que depuis une semaine mu ngi may topp ne ma Sahara ngi fi Sahara ngi fi saxaraa ngi fi moo tax ma ñëw avec les enfants ñëw rek jël le mouton parce que ñun ñëpp ay jullit lañu donc le sacrifice d'Ibrahima dañ ko war a def loolu moo euh, mission la jóge won barki démb rek bima ma je me suis dit que dana jaar xalé yi pour ñëw donc euh, récupérer ko et puis occasion bi aussi dana tax euh, nga donc s'affronter avec nit ñi voilà pourquoi j'ai préféré moi-même ñëw ba s'affronter avec ñom euh xol ambiance qui bi aussi moy daral bi et puis ça me permet de me recréer un peu donc yoy la loolu moy tabaski ambiance la rek de façon yéen aussi nous vous remercions ci liggéey bi nga xamante ne yéen koy def Babacar Touré maa ngi koy maa koy koy au passage sunu wëlëre la vraiment sunu andi jàmm la yàgg nañu. Oui, bon, je suis plus maire à Djemberin, mais euh, de toute façon, on est tous des citoyens sénégalais. Oh, nous sommes des, des Casamassés. Euh, dans mon euh, occasion, euh, j'ai souhaité une bonne fête. Fête bi

pour que nous puissions donc ak euh, la malnutrition du Sénégal Il itam un message un message de paix parce que tabaski Mohamed Noël fête euh, croyant après dañuy euh, ziarante donc un message de paix le Sénégal on ne peut que le gouverner dans la paix Nous ko gouverner justement dans la division dans le chaos Moi, les messages yi nga message pour yàq que nous jógee ci opposition wala mu pouvoir nous ko bannir donc vraiment euh, message pour laa bëggoon donc en souhaitant la fête à tout le monde